les parents parce qu'il ñetti a de de de de responsabilité est-ce que xam nañ fa ñu l'Europe c'est la première question que je pose. à cette jeunesse parce qu'ils ils ont le désespoir. désespoir je je dirais pas xale yi nous euh, ngi encore bon pas. oui mais kuy dem parce que parce que quand même parce que quand même fa ñu jëm lañ lañ fa mais moi, moi j'ai problème moi une feuille de main. mais parce que tout simplement la responsabilité incombe aux trois acteurs nga mom nga wax. c'est ce que j'ai dit. c'est une vérité mais si dégué ma ndax xam nañ fa ñu man j'ai vécu 26 ans presque 27 ans en Europe. étant étudiant étant cadre supérieur. avec des moyens mais mes cinq premières années en Europe yor carte étudiant du ma daw policier du ma tout du me mais vous, vivez à peine. mais le mot fa man ak c'est les chiffres de Enda qui le disent 10 sénégalais étudiants à Ils ont di dem les sept Ils les sept ci Ils am diplôme ci ñaar am diplôme en Europe. c'est important dans l'église de Saint-Ouen dans le 93 boo gisee suñu mbokk sénégalais niñ fay dundé da nga naan li lu ko jar ci aduna mais est-ce que xalé yi xam nañ lolu motax manalé est-ce que fañu jëm xam nañ ko est-ce que wax nañ leen aussi. la nga xamantene ne fan moom la ñuy même les politiciens yi nga xam dañu wax parce que moi j'ai l'impression les politiciens aussi il faut que ñu dem ci des sujets yo xam les sujets yoo xam ne les sujets sujets national ñu mën ci di wax addu ci bu interpeller nit ñi mais dama gis ne situation bu ñëwee il y ñu wax ci li nga xam ne mooy jëriñ mais dañuy envenimer pour am ay dividendes politiques est-ce que loolu tamit c'est un problème. non man damay pointer sax euh, les les hommes des les hommes des médias sax laay pointer du doigt. tey jii man bu boobaa sax man sax yeen lay wax duma wax sax politiciens parce que parce que parce que li tax ma yeen yéen ces sujets c'est la presse qui devait en faire une arme. fofu le presse bi waron ils ont essayé hein doyul. ok c'est la presse qui est écoutée politicien bi bu soxlaa wax ci presse bi yee ñëw. ci là, cest à dire on ne pose pas. les, questions qu'on ré, poser les réels problèmes. Ah, mais Europe la fin tu tu bi sax nga koy daw. parce que gis nañu dañu commençons commencé à baisser qui dans les pays du sud dans les pays du sud. ça il faut le dire c'est vrai voilà donc mais et puis le nombre de plages au Sénégal xam nañ xanaa tey jii bu ñu demee ci parce que gis ne yaa ngi doigté du doigt. bah évidemment les les maires yi nga xam ne dañu am ay géej am nañ sax ay kii de responsabilité yoo xam ne am nañu. parce que mais ça la responsabilité incombe au maire. voilà lieu de parce que tey jii tey jii boo demee ci Adama Mbengue jaraafu. Soumbédioune Soumbédioune. Adama boo ko waxee boo ko laajee. plage yi am ci Sénégal yëpp dafa la koy wax. da koy waxtaanee sax. fi ñuy déparé genn wàll gépp xam na ko. donc Adama dafa daan dugg ci géej gi di jël pirogue di def lépp. di nappi di ñëw. Mhm. xam na plage bi na ko autorités yi dem jege. buñ ko jegee Adama xëy na mën na leen firndeel fi plage yi ne ci biir Sénégal mën na leen ci jàppale. mën na leen ci wax parce que ci loolu lay liggéey est am na benn dëgg bu bon benn wax bu ñuy wax na yàq autorités yi xam nañ ko. mais dañuy neub sen beut pour bay xalé yi dem. kenn mënul nëbb ci beut ci lo xamante ay musiba la. xam nga état bi bu bëggee. état amna na moyen moyen ku départ mu xam. kenn mais état bi gis gis say xalé di dé wa mais. kenn bëggu c'est ça c'est pas c'est pas un silence coupable. l'état non c'est pas coupable. c'est-à-dire l'état c'est nous tous. oui c'est-à-dire à un moment donné. il faut qu'on arrive xam nga vous n'avez pas certains moi je n'ai pas les moyens que l'état a. doyen Coly. oui si c'était à refaire pour moi là condition Yama jangé Europe buma ko waroon dund tay du ko def. dem nga sa def na fa 26 ans dem na may na fa teranga mais buma togué diko di condition Yama démé ak nama jangé fofu si c'était à refaire c'est de la suicide du yëfu nit. ok légui vous avez une occasion de parler à ces trois personnes là parents la société l'État, les autorités et qui nga ne embarque embarque embarcations. embarcation embarcation j'ai dit que l'état doit sanctionner. cette jeunesse là c'est la continuité du Sénégal suñu la jeunesse bi suñu alal la nit alal da koy fonk. moi je dis que l'état doit sanctionner gis nga xale yi jël géej gi jël gaal gi xale bu ñu ci jàpp pour man nañ la yóbbu kédu gi nga béy ah nañu leen yóbbu kédu gi ñu béy sàmmi. nañu génne les militaires qui sont dans les réserves ñu dagg hectares yi xale boo xamante ne da nga ne Sénégal amul liggéey Sénégal mënoo fi def dara nga jël gaal gi bu ñu la jàppee nañ la yóbbu nga béy l'état à un moment donné doit sanctionner fa lañ war a toll. man je dirais dans ce pays-là. Parce qu'on ne sanctionne pas. Ok. Si ñu rawee ki nga xam ne jël embarque embarcation embarquement yi euh, lan ngay wax ki société les parents. mais la la société a failli parce que le mot teki »« sama me donne de a teki, sama me donne de a am mais lan mooy tekki au final lan mooy am am au final comme Nico ko waykat bu Youssou Ndour mais à quel prix. mooy li ñu dal tey mooy li dal xale yi nga tekki à quel prix coono dem egg wóorul nga egg coono war fa dund ci coono teg sa njaboot ci coono teg say waajur ci coono finalement mu jaral la lu ne nga tekki c'est-à-dire da ngay dem ba valeur sax dootoo ko am moo tax ma ne xëy na sama candidat bi bu ñëwee Lui qui incarne toutes ces valeurs-là, il peut être un modèle pour les Sénégalais. Il peut être un modèle qui peut inspirer la jeunesse sénégalaise. Nous sommes réunis. Moi, ce que j'ai gagné aujourd'hui au Sénégal, je suis au Rodan, je gagne. Je fait. damay bay damay sàmb damay def lépp fii ci réew mi je suis un agriculteur du dimanche ba fait, demee sama tool Bambilor la ma fay bay dama ciy gañ fait, te ñaar ak ñetti hectare la on a ces possibilités là il faut que nous xale ça ça manque. et l'état la responsabilité de l'état. la responsabilité de l'état il faut que l'état prenne ses responsabilités comme nous mu dit. Nous, nous dimbali xale yi gens nous sont des gens qui koy laaj la bëgg dit lan lañ posons cette question à cette jeunesse demandons à la sénégalaise qu'est-ce que vous voulez. tekki. tekki ci naka. mën nga tekki ci jàng mën nga tekki ci financement mën nga tekki ci formation mën nga tekki ci leneen cette réussite sociale doit être accompagnée et l' accompagnement mooy li nit ki bëgg parce que mbër mi kat mënoo ko fubal loo bi mënoo ko bëreel loo handballeur bi mënoo ko fay loo kii fay mënoo ko basket loo mën ngoo ko fekkee ci li mu bëgg nga accompagner ko pousser ko ci bu boobaa xale bi dina ci am lueur d'espoir gëmuma ñu naan Sénégal kenn du fi tekki c'est ni teki Sénégal ñëpp fi lañ tekkee. ñi tekki Sénégal ñëpp fi lañ tekkee. man buma démé tay ji au niveau dans la zone du Niayes. Youssou Ndour est un exemple. Youssou Ndour sax sori na. un exemple Youssou Ndour sori na. au niveau de marché Tilène tey jii boy fa nek ñëpp teki dañu bari. te fi lañ koy wute fi pour ne pas citer leur nom parce que bëgg ñu citer sen tour ay doomu Médina lañ ay doomu Ndakaaru lañ ay ñambour ñambour lañ ay bawol bawol lañ. ce sont des Sénégalais ce sont des Sénégalais am na benn góor benn kilifa dafa nekk dans l' activité maritime mhm. dafa doon coxeur la woon. tey jii am na une flotte de 500 camions yu mag yi teg conteneur. yi benn camion bu nekk 500000 francs mhm. lay dugal par jour. kooku dafa bëgg une voie maritime li ay société yu mag yi di def di dem ay Europe ak yooyu di indi conteneur yi di indi góor gi loolu la bëgg. loolu rek la bëgg. Il y a des moyens nécessaires pour ça nañ ko dimbali par exemple li mu jël ces exemples sont là. ok bon comme vous êtes près du candidat il faut lui filer c'est c'est voilà. dans le programme les gens ont besoin de tout cela voilà je vais li nga xam ne moom la ce bàyyi la nga wax sa dernier mot euh, lay tàggatoo ak ñun ñi. suñuy lay wax ak ak suñuy jarbat. l'Europe n'est plus comme avant. Ce n'est plus l'Eldorado. Ça n'a même jamais été l'Eldorado. Okay. C'est-à-dire, rêve bien truqué c'est tronqué. C'était pour donner une. un euh, mirage. Pour, pour donner une lueur d'espoir. Voilà, même pour euh, justifier un peu la colonisation. Nous avons dit que nous avons

Un tey wasin tey amul fenn ci aduna le développement la croissance teki c'est dans la durée dañ koy liggéey dañ koy ñefe day metti nak ñuy muñ la réussite et après l'échec di nga ram di nga daanu di nga jog di nga faxastalu mais après day ñëw grand yu sundur fu ne jaar na fa tey ji machallah ken waxul waxatu sëriñ bu fu jaar na fa les exemples sont là donc je dis à cette jeunesse tukki baax na ab jàngat la dina la permettre nga jang mais bu fekkee ne réussir ngeen bëgg la réussite va se construire ici au Sénégal boo leen laajtee rek ñu gunge leen ci kàttanu yàlla je dis pas que né tukki Europe baxul baxna mais du lolu ngeen yaakaar ne moo fa né wu fa. il y a un adage qui c'est l'espoir qui fait vivre non lañ tag non lañ leen taggo di leen jox rendez-vous ak keneen incha allah suba.